soxna jóob mbàkke soxna jóob mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1908 ci dëkk bii di Ceyeen Jolof booba waajuram sëriñ Tuuba Seexul Xaddim mi ngi ci dëkk boobu di Ceyeen Jolof ci résidence surveillée foofu la jëmm ji di soxna jóob mbàkke feeña lii di jamono soxna jóob mbàkke doomu soxna faati tuuti jóob la ak ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xaddim moom soxna jóob mbàkke am na ñu mbokkal kii di soxna faati tuuti jóob ñu ràññee ci soxna muslimatu mbàkke bintu soxna faati tuuti jóob bintu sëriñ Tuuba Seexul Xaddim soxna xadijatu mbàkke bintu soxna faati tuuti jóob bintu sëriñ tuuba seexul xaddim sëriñ xaamidu mbàkke mbàkke ibnu soxna faati tuuti jóob ibnu sëriñ tuuba seexul xaddiim sëriñ abdu muhayminu mbàkke ibnu soxna faati tuuti jóob ibnu sëriñ tuuba seexul xaddiim cheikh murtada mbàkke ibnu soxna faati tuuti jóob ibnu sëriñ tuuba seexul xaddiim sëriñ ahmadu muxtaar mbàkke ibnu soxna faati tuuti jóob ibnu sëriñ tuuba seexul xaddiim ak moom soxna jóob mbàkke mi nekkoon seen mag nekkoon taawu soxna faati tuuti jóob bintu soxna faati tuuti jóob bintu sëriñ tuuba seexul xaddiim soxna jóob mbàkke ñii la bokkal waajur wu jigéen muy soxna faati tuuti jóob Diop ak Serigne Touba Seexul Xadim mu feeñe jamono ci dëkk boobu di Ceyeen Jolof tombeeg waajuram wa Serigne Touba Seexul Xadim nekkoon fa ci résidence surveillée ginnaaw bu mu feeñee jamono la ko waajuram wa duppee soxna Faati Isa Diop mi waajuram maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru xam ngeen ne soxna Faati Isa Diop ak ku baax ki Serigne Touba Seexul Xadim am na histoire bu yaatu bu jaar ci seen diggante ndax kat kii di soxna Faati Isa Diop am na bis muy waxtaanu ku baax ki Serigne Touba Seexul Xadim di ko xamal ne moom ku ragal lii di bàmmeel la lay def ak bàmmeel sëriñ tubaa seexul xadim di ko xamal ne bis boo génnee lii di àdduna man maa lay taawu dugal la ci biir bàmmeel xanaa kon su boobaa da nga ñeme lool ci mu taxoon ne kii di soxna faati isa jóob xelam daloon ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ci wax jooju mu ko waxoon te mooy boo génnee àdduna maa lay taxawu lu ko jiite itam kii di soxna faati isa jóob ku taxawu woon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim la ndax ci ak tuut tànkam itam defoon na ko na doomam ji di maam ceerno ibrahima faati ak njabootam teel seexul xaddiim ngir roy ko def ko mag te booba dara xewagul ak yeneen ak yeneen i histoire yu dox ci diggante soxna faati isa jóob ak ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim loola itam tax na bi sëriñ tuubaa seexul xaddiim demee ci géej gi xam ngeen ne tubaab bi daana bind lii di ay lettre di wax ne ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim génn na àdduna ci dëkk boobu di gabon bañ denc ko fa ngir bëgg rek murid yi nga xam ne ni sëriñ tuubaa seexul xaddiim bàyyi na leen di sénégal ñu am ak yokkat wala yoon wi tas waaye saa buñ ko masaa wax tubaab bi wax am ñu weddi ci li tubaab bi wax ngir def ay listixaar ba xam am na waaw wala déet waaye soxna faati isa jóob daana wax maam ceerno ibrahima faati la ma sa mag ja waxoon du deñ te man moo may yoor ci biir bàmmeel te maa ngi nii génn guma lii di àdduna sëriñ tubaa seexul xaddim wéy nekk gabon ba nim ñibbisee ci atu delluwaat ci atu ci réew mi di gànnaar 1907 mu ñëw ca yéen jolof ca jolof nag la wooloo kii di soxna faati isa jóob ginnaaw bu ko soxna faati isa jóob wuysee ci lii di àdduna la ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim waxoon am na ndax moo ko mujj yoor ci biir bàmmeel loolu itam tax na doomam ji di soxna Jóob Mbàkke bi mu feeñee jamono ci dëkk boobu di cëyeen jolof tombee itam ak kii di soxna Faati Isa Jóob génn lii di àdduna sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim duppeeku ko ngir fi mu jaar ak soxna Faati Isa Jóob kon soxna Jóob Mbàkke soxna Faati Isa Jóob lañ ko tudde ngir kóllëre gu Seexul Xaddiim amoon ak soxna Faati Isa Jóob soxna Mbàkke bi matee dal lii di alxuraanul karim sëriñ la ko jox moo ko jàng lii di alxuraanul karim ba mu bind lii di kaamil bi sëriñ ndaam abduraxmaan loo moo fop kaamilub soxna jóob mbàkke yit ko ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim ci njaareem boobu sëriñ tuubaa seexul xaddim jóge na ci yéen jolof dem njaareem ci beneen résidence surveillée keroog sëriñ tuubaa seexul xaddim sant na bu baax a baax kii di soxna jóob mbàkke ñaanal ko gërëm ko am na itim lum dénkoon kii di sëriñ ndaam abduraxmaan loo ci soxna faatu jóob mbàkke mi waaye wax jooju ku dul ndaam abduraxmaan loo ak sëriñ tuubaa seexul xaddim xamoo ko mu ci loxo loxoy waajuram soxna faati tuuti jóob moom soxna jóob mbàkke bi matee dem lii di kër sëriñ tuuba seexul xaddiim moo ko jox sëriñ ndaam abdurahmaan lo ci ndaam daaru xalimul xabiir bisub keroog sëriñ tuuba seexul xaddiim bi muy jox soxna jóob mbàkke ki di sëriñ ndaam abdurahmaan lo magam mu cheikh mamadul mustapha mbàkke la woolu bam ñëw ngir mu wax ko mu yóbbu soxna jóob mbàkke mi ci ndaam daaru xalimul xabiir bu demee mu jëbbal ko sëriñ ndaam abdurahmaan lo di ko wax ne ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim nee na nga dëkkoo soxna jóob mbàkke mi keroog bi sëriñ seexul xaddim yónnee seex Moodu Mustapha Mbàkke ngir mu indi soxna Jóob Mbàkke ci loxoy sëriñ Daam Abdurahmaan Lo baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim bisib keroog mi ngi wax kii mu Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke su demee na jox sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo kii di Soxna Jóob Mbàkke ngir mu dëkkoo ko moo tax soo demee ci marsiya bi Cheikh Moussa Ka di way kii di sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo mi ngi koy wax ne yaa sañ ndax yaa yor bàjjen ya ak doom ya bàjjen ya nag mooy soxna Aminata Mbàkke mi bintu Mamor Anta Sali Mbàkke doom ya nag mooy soxna Jóob Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ak soxna Muslimatu Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Seexul daam abdourahmaan loo ba ni mu génnee àdduna ci atum 1930 ci ndigalul waajuram sëriñ tuuba seexul xaddiim bim ñëwee ci loxoy sëriñ ndaam abdourahmaan loo ci kër gu mag gi di kër sëriñ ndaam abdourahmaan loo foofu la nekkoon ci néeg bi nga xam ne ni bi sëriñ tuuba seexul xaddiim ñëwee ndaam daaru xalimul xabiir dafa naanoon fi néeg boobu la ko sëriñ ndaam abdourahmaan loo féete la loon muy néeg seexul xaddiim bi kon foofu la soxna jóob mbàkke nekkoon ko fi itam la liggéeyee la sëriñ ndaam abdourahmaan loo ba ni mu génne lii di àdduna nekk ci loxoy sëriñ ndaam abdourahmaan loo ci ndigalul waajuram sëriñ tuuba seexul xaddiim ba tax na am naa kii di sëriñ ndaam abdourahmaan loo lu tolloo ñetti bant sëriñ ibrahima xalil loo ibnu soxna jóob mbàkke ak sëriñ ndaam abdourahmaan loo soxna roq roqiyatu loo bintu soxna jóob mbàkke bintu sëriñ ndaam abdourahmaan loo ak sëriñ cheikh loo ibnu soxna jóob mbàkke ibnu sëriñ ndaam abdourahmaan loo sëriñ ibrahima xalil loo mi ak soxna roqiyatu loo mi dañoo teel a génn lii di àdduna sëriñ ibrahima xalil loo moom itim di doomu soxna mbàkke rakkam jii di sëriñ cheikh loo ibnu soxna jóob mbàkke moom la tuddee doomam jii di sëriñ xalil loo soxna jóob mbàkke bi mu fi bàyyi ko ci atum 1930 benn doom rek la fi bàyyi ci ñett ñim amoon muy sëriñ cheikh loo ibnu sëriñ ndaam abdurahmaan loo ak kii di soxna jóob mbàkke bi mu fi bàyyi kii di sëriñ cheikh loo mii doomam itam ci ñaari at yu teg ay weer rek la am waaye nag lépp sëriñ cheikh loo soxna muslimatu mbàkke la mii rakk waa waajuram ndax bi soxna jóob mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim génnee lii di àdduna moom lañ fa toftal ngir mu wuutu njaboot njaboot gi bi mu nekkee ci loxoy sëriñ ndaam abdourahmaan loo moom soxna jóob mbàkke ci ndigalul waajuram sëriñ tuuba seexul xaddiim bind na baneen kaamil ginnaaw bu mu bindee kaamil bi ba noppi nag booba fekk na waajuram wa sëriñ tuuba seexul xaddiim génnoon lii di àdduna ginnaaw buñ ko jébbalee magam ja cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ mbàkke buso la jébbaloon kaamil ba ngir mu topp kaamilu soxna jóob mbàkke boobu waaye macha allah kii di sëriñ mbàkke buso amul lenn lum ca doon wax lu daal kaamil bi niñ ko war a binde nañ ko noonu kaamil keroog bi ko soxna jóob mbàkke di bind ak xasida la ko booleel ngir jébbal ko magam ja cheikh mamadul mustapha mbàkke kaamil bi soxna jóob mbàkke nag bindoon ku ko bëgg a gis boo demee ci kër soxna muuminatu mbàkke bintu sëriñ tuuba seexul xaddiim ci doomam jii di soxna barakatu buso ñu gën koo xam ci soxna gàdd buso moom moo yore lii di kaamilub soxna jóob mbàkke boobu mu bindoon di ñaareelu kaamil bu mu bindoon ci bi mu nekkee kër sëriñ ndaam abdourahmaan loo kaamilub alxuraan boobu nag sëtub soxna jóob mbàkke bii tudd sëriñ fàllu loo Jóob Mbàkke sàkku woon na ko ci bàjjenam boobu di soxna barakatu buso ngir mu abal ko lii di kaamilu maamam boobu di soxna Jóob Mbàkke ngir mu man koo sotti ngir am ko waaye soxna barakatu buso abaloon na kaamil bi kii di sëriñ fàllu loo ngir mu man koo sotti kaamil ba soxna Jóob Mbàkke bindoon ci loxo yi boppam mu ngi ci loxoy soxna gàdd buso bintu soxna moominatu Mbàkke bintu sëriñ Mbàkke buso soxna Jóob Mbàkke ku taxawu woon ñi sëriñ daam Abdurahmaan loo nekkaloon la rawatina liñ tuddee dongay daara nemmeeku ba duñ xiif ndax loolu itam bokkoon na ci liggéey bi nga xam ni keroog bi ko sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mi waajuram doon jébbal sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo itam ci la bokkoon ndax mu mën a jaamu yàlla ci sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo ndax am na bis doomam ji di sëriñ Cheikh Lo ibnu Soxna Jóob Mbàkke doon ziyaare ji kii di sëriñ Moustapha Ceytu mi nekkoon doomu maam Cheikh Anta Mbàkke keroog sax sëriñ Moustapha Ceytu mi ngi koy tooñ di ko wax ne sëriñ Cheikh Lo yow de doom mag ndax maa ngi fàttaliku bi ñuy nekk foofu ci ndaam daaru Halimul Xabiir muy mbàkke ak kii di sëriñ moodu roqaya sa waajur wa soxna jóob mbàkke musta nangu ñu tilim musta nangu itim dara mànkiñ saa su ne daa nañu toppatoo lii moom sëriñ mustapha ceytu mbàkke seedeel na ko sëriñ cheikh loo na soxna jóob mbàkke daana leen ko defal bi ñuy jàng ci loxo loxoy sëriñ daam abdourahman loo boole koog mu nekk nag kuy yar ak di jàngale te li muy nekk nekk ci loxoy sëriñ daam abdourahman loo di def li ko war itim góor-góorlu woon na ba bindub kaamil ci biir nekk gim nekk ci loxoy sëriñ daam abdourahman loo te ay atamitim guddul ndax ci ñaar fukki la dund moom soxna Jóob Mbàkke kër gi njabootuk soxna Jóob Mbàkke dëkke ci ndaam daaru xalimul xabir kër gi sëriñ Tuubaa seexul xaddim moo ko sanc ci atu 1903 ndax bi sëriñ Tuubaa seexul xaddim jugee ci tukki bi ci atu 1902 jaar fi jaar ba ñëw daaru salaam am fi ngan ginnaaw bi nag dafay bàyyi ko woon dem ci daaru marnaan muy fi tolloo garage yu Dakar bi nekkoon fa ci ngan gum amoon ci maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru kër googu ñu ko defaraloon foofu ci daaru marnaan kër gi dafa mujjoon tàkk ba jeex tàkk sëriñ Tuubaa seexul xaddiim bàyyi ko waat fa foofu ci daaru marnaan ndax kat lu ko jiitu sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw bu mu sancee tuubaa ba dëkk fi lu tollu juróom-ñaari at yu teg ay weer suñ boroom xamaloon na ko ne tukki bii ngay waaja a dem de nattu bi dana metti sa dëkk bu sell bii di tuubaa du doo fi jaar ci diirub li ngay dund bis booy ñëwaat ci dëkk bu sell bii di tuubaa sa coobare du la fi indi loola itam sëriñ tubaa seexul xaddiim nanguloon na ko suñ boroom ci contrat bi mu séqoon ak moom moo tax bi mu jógee ci tukki bi ci atum 1902 jaarul ci dëkk bu sell bii di tuubaa Touba ñëwaatu fi benn yoon lu dul rek ci 1927 bi mu génnee lii di àdduna bi mu ñëwee daaru salaam ñëw daaru marnaan itam li muy jege-jege Touba taxul mu jàll si Touba ndax contrat bi mu séqoo nag suñ boroom loolu itam moom moo tax kërug daaru marnaan googu bi mu lakkee sëriñ Touba seexul xaddim jógewaat fii ndax kat boobu munta nekk ndaam daaru xalimul xabir ndax jébbaloon na ko sëriñ ndaam abdourahmaan loo moom la ko rafaatale daaru salaam gim sancaloon boppam itam jébbaloon na ko maam cheikh anta ndax dëkk boobu itam moom la ko rafaatale diggante ndaam daaru xalimul xabir ak dëkk bii di daaru salaam sanc fii dëkk buñ tuddee daaru salaam ndaam moo tolloo kër sëriñ cheikh loo ba ci raay bi foofu sax la njabootuk soxna jóob mbàkke dëkke ak lenn ci njabootuk cheikh murtada mbàkke gi kon kër googu la seexul xaddiim sancoon bi këram gi lakkee ci daaru marnaan kon kër googu li tax njabootuk soxna jóob mbàkke dëkke ci dafa am bis soxna muslimatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim mi soxna jóob mbàkke demoon njaareem ziyaara ji cheikh mamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim bisub keroog cheikh mamadul basir mi ngi wax soxna muslimatu jël kër googu dëkkal fa njabootuk soxna jóob mbàkke gi ci misaal sëriñ cheikh loo loolu moo jotale njabootuk soxna jóob mbàkke kër googu kër googu tim bërëb bu barkeelu mang fa ndax bi fa sëriñ tuubaa seexul xaddim nekkee ci diirub liñ doon defaraat kërub daaru marnaan gi am na bërëb bu daa jàppee ka jullee bërëb boobu mang fa bërëb bi sax léegi njabootuk soxna jóob mbàkke ñi ngi koy tabax lii di jàkka ngir màndargaal fa seexul xaddim doon jàppe ci biir kër googu kon kër googu bi fi njabootuk soxna jóob mbàkke mbàkke di dëkk soxna jóob mbàkke génn na lii di àdduna kon loolu mooy sababub sëriñ cheikh loo ibnu sëriñ ndaam abdourahmaan loo ak kii di soxna jóob mbàkke dëkk ci kër googu sëriñ cheikh loo xamul soxna jóob mbàkke soxna muslimatu mbàkke la xam ndax bi muy xàmmee soxna muslimatu mbàkke la xam ba tey ci kër googu kii di seex ma cheikh mamadul faadal mbàkke daana def bu jógee tuubaa buy dem mbàkke bawal jaar ci kër googu ngir di ko nemmeeku ak di ko ziyaare ba am bis mu jaar fa gis ne sanc nañ ko mu laaj kan moo sanc fii Jóob Mbàkke de mooy ki ko sanc Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke keroog wax na ne kii de di Serigne Cheikh Lo sañ na koo sanc ndax kërëma lépp loo xam ne ni moom moo ciy dem ba nit man cee mën a dëkk moom moo koy def moo tax seng yi njëkk a ree kër gi Cheikh dul faadal Mbàkke moo ko jënd ngir barkeelu ci dëkk gi fi Serigne Cheikh Lo dëkk soxna Jóob Mbàkke wiy nekk nag ci loxo Serigne Ndaam Abdourahmane Lo ci daaru Halimul Xabiir di doxee rek na waajuram wa daa doxe muy yar ak di jàngale toppitim ci ginnaaw Serigne Ndaam Abdourahmane Lo def ko génne àdduna ci atum 1930 ci dëkk boobu di ndaam daanu xalimul xabiir keroog bi mu génnee adduna dëkk boobu di ndaam daanu xalimul xabiir ci xilaaf ak magam cheikh dul mustapha mbàkke lañ ko yóbbu tuubaa nag jébbal ko boroomam ci armeel yu mag yi ci teewaayu nag mbooleem ay magam ak lii di ay rakkam moom soxna jóob mbàkke moo tax soo demee ci marsiya bi ko soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tuubaa seexul xaddim defal keroog bi mu génnee àdduna soxna maymunatu mbàkke ma ngay wax ci biir marsiya ba ko wax ne kii di soxna Jóob Mbàkke génn na lii di àdduna muy wax ne soxna Jóob Mbàkke ku ko bëggoon la ku ko nawoon la moom soxna Maymunatu Mbàkke bintu Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mu ne lool nag moom moo tax mu di ko jooy jooyu xol boole ko nag di ko wax ne liggéeyal nga sa waajuroo Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci jëmm jii di Sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo ndax kat Sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo képp koo bokkal Xaadim Rasuul wala sax mu nekk sa waajur Sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo moo ko jàngal yow nag demoon nga fa tig wetam ngir di ko liggéeyal ngir sàkku fa ngërëm liggéeyal mu liggéeyal sëriñ ndaam abdurahmaan loo ci lu ñépp waroon a def te moom mu def ko jikko yooyu yépp la soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim boole ci marsiya bi mu defal kii di soxna jóob mbàkke di waxaale itam ñiy dégg soxna jóob mbàkke xamuñu kan mooy soxna jóob mbàkke ginnaaw bu ko defalee marsiya ku teewlu marsiya bi nag da nga xam bu baax a baax jëmm jooju di soxna jóob mbàkke nu meloon ñu teewlu marsiya bi ko soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim defaloon ngir di ci jooy doomu baayam boobu di soxna jóob mbàkke ma ñëw fi def marsiya koo xam na si gisuma kémam ci rakk yi ak mag ñeeg ñi di masam te jooy fi saajooy xol yi def ko muy walafal te wax ci laa xam ci moom cey ak dib yaaram boo ko xamul moo di binti Cheikhina wa tey sibtu mam maharam ba tey bu ngeen ko xamul moom la sëriñ bi joxoon Cheikh Abdourahman bi baa ko xamle ngir baayam xamal na mbooleem ku baayam jur xamal na itam mbooloo ci ay taalibeem bañ xam ngir baaxam sëriñ bi woolu ko def ko sàmm jox ko ñoñam ci sax la seere moo yor ngën di kuy maasam moo yor ki tax ba ma jóg tey jii dimanche ya ngir baaxam wulaak asal moo aw ngirum baayam laa wax moom la Bamba di fay sang bi boole kersaak xam akub taarab ma ràññaleel la doom wa soxna Jóob la ñu koy wax Mbàkke Balla Asal tey jii ma nga ak baayam bisub àllarba ci waxtu tàkkusaan la ñu may wax ak demam sama xol ba raw xolu baayam yaroog fulla kersa ak làmmiñu gàtt asal taaram la boole bindoon nëb téere ngir baayam daawul xuloog ko mag daawul xasit ku ko mag daf daa tëral ñëpp moo gën nag ku fi maasam daf maa bëggoon lool ba des ma soppe moo tax itam feeg maa ngi dund damay jooy surtout am maxaram bu dul ko nag xam ne maxaama waral ñu ne cas saa soppe boobee danaa jooy jooy mu di waaram waaye dama xam ne rëy maxaama rek ka waral sëriñ bi jël si ko xaat askay bile bi yaram sëriñ bi yàlla na nu taas ci darajaam yamu am musal ku bokk ci moom te def ma may aalim yàlla buñ ma defee aalim ma dolli ko ay bëyit yu sell yu duy taggam te di yaaram alhamdulilah rabbil alamin kon loolu mooy marché bi ko soxna Maymunatu Mbàkke bintu Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim defal moom soxna Jóob Mbàkke kii di soxna Jóob Mbàkke nag am na ay turandoo ci njabootu ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim rakkam ji di Cheikh Murtada Mbàkke tudde na ko doom muy soxna Jóob Mbàkke bintu Cheikh Murtada Mbàkke soxna Jóob Mbàkke moom Cheikh Murtada Mbàkke mi sax Sëriñ Mustapha Mbàkke Basiiru lañ ko joxoon mu yóbbu woon ko ci dëkk bii di Gosaas ginnaaw rakkam jooju di Cheikh Murtada Mbàkke bari na itam ci ay doomi baayam wala lii di mag ñi toppoon Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ñu ko tudde doom ndax tuuti ci yoon wii di yoonu murit wala am jóob mbàkke soxna jóob mbàkke lañ leen tudde soxna jóob mbàkke am na bis buñ koy fàttaliku muy fukki fan ak juróom-ñeent ci biir weeru ko bis bii la soxna jóob mbàkke bindoon kaamilub alxuraan bi mu yitoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci loxoy sëriñ ndaam abdurahmaan loo te sëriñ ndaam abdurahmaan loo àndoon ak soxna jóob mbàkke yóbbu ko ci buqatul mu baraka ci njaareem wan ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim te tubaa seexul xaddiim santoon bu baax baax kii di soxna jóob mbàkke ci bindu kaamil boobu bindoon kaamil boobu ci bëccëgu fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor lañ yitoon seexul xaddiim kaamil bi bis bii nag njabootam gi rawatina turandoom wii di soxna jóob mbàkke moom cheikh murtada mbàkke daana ko fàttalikul bàjjanam ba ngir di ko ca ñaanal ndax bis boobukat ci la jote woon ngërëm ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim dundal na ko ay yoon yoon wala màggal na ko ay ati ati at njabootu soxna jóob mbàkke itim daanañ taxawu bis bi bi jàppaat ko nag Cheikh Lo moom soxna Jóob Mbàkke di bis bi mu génnee àdduna ndax sëriñ Cheikh Lo ñaar fukki fan ci rakkaat ji gàmm la génn lii di àdduna di bisub altene ba bis ba delsee nag di ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci rakkaat ji gàmm moom la ko njaboot gi di fàttaliku waale mook doomam ja sëriñ Cheikh Lo sëriñ Moustapha Lo ibnu soxna muslimatu Mbàkke mii seen waajur doon na sàkku itam ci njaboot gi bis boobu di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor bis boobu itam ñu bañ koo bàyyi bu dul dara itam nañ koy màggal ba gi dikkaatee itam ñu wàcce ci ay kaamil ngir ñu xam ne itam seen maam ji soxna Jóob Mbàkke ci bis bii la jébbaloon sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ab kaamilam muy bëccëgu fukki fan ak juróom-ñeent ci biir weeru koor waaye bis bi njaboot giy fàttaliku jamono ji moom da ci fàttaliku wàlle soxna Jóob Mbàkke ak doomam ja sëriñ Cheikh Lo muy bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rakkaat ji gàmmu ci ndaam daaru Halimul Xabiir màggal gi itam màggalu bëccëg dong nag la doon jëmm jooju di soxna Jóob Mbàkke na nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ci darajey waajuram sëriñ Tuubaa seexul xaddiim doomam jëm fi bàyyi woon di sëriñ cheikh ci atu la feeñ jamono ci dëkk boobu di ndaam daaru xalimul xabiir sëriñ cheikh bi mu feeñee jamono di doomu soxna jóob mbàkke ak kii di sëriñ ndaam abdourahmaan ci atu dafa indaale ak lii di mën a bañ a wax waaye nekk na koo xam ne ni ku yéeme la ndax kat jàngul fenn lii di alxuraanul karim waaye lu ko waaye masaa indil ci am mbind dana la tontu moom jëmm jooju di sëriñ cheikh lo mu nekk itam ko kiimaane nekk itam koo xam ko bindee ciw këyit jox ko ko dana bind tontu la te soo demee kat bu la waxee waaw jërut sax ngay laam-laamee soo demee la nga bëgg danga ca jot kon ku kiimaane la woon moom doomam jii di sëriñ Cheikh Lo ci nag la sax yor ndonal soxna Jóob Mbàkke ba ni mu génnee àdduna ba ñu baree baree bari daanañ seet si jëmm jooju di sëriñ Cheikh Lo ngir di ko diis seen jafe-jafey àdduna te noonu ñu ko daa diise ba am ci moom yaakaar suñ eggee noonu lay saafarawoo moom doomu soxna Jóob Mbàkke boobu doomu soxna Jóob Mbàkke boobu di sëriñ Cheikh nekkoon nag ku kiimaane kiimaane Mané am na benn bis mu demoon njaareem ci kër sëriñ Mor Mbay Cissé ku ñuy wax sëriñ Moustapha Guèye maa nga fa woon ku daa jàngalee sax la ci kër googu di kër sëriñ moor Mbay Cissé mu am bis mu ñëw fa moom sëriñ Cheikh Lo am keneen ku fa nekk koo xam ne nii munta wax ñoom ñaar ñu dajee fa sëriñ Moustapha Guèye moom di xamal kii di sëriñ Cheikh Lo di ko wax ni kii de daa muuma waaye munta wax moom moo tax sax mu bëgg ko koo xamal sëriñ Cheikh Lo keroog bind na aw kayit jox ko kii di Moustapha moom di ko xamal ne kii moom daa waaye man muuma nekk ci suñ boroom moo ko def ci ñun waaye kee moom maa ngi moom bokkuñu kii moom dafa muuma waaye ñun nag li nekk ci ñun suñ boroom tabaaraka wa la moo ko def ci ñun lii moom sëriñ Cheikh Lo xamaloon na ko sëriñ Moustapha Guèye nekkoon ci daara sëriñ moor Mbay Cissé bu njaareem sëriñ Moustapha Guèye itam ku nekk njaareem xam nga ko ndax jàngalekatub alxuraan la bu mag a mag ci njaareem googu kiimaane googu mu kiimaane woon taxoon na itam lii di ay nijaayam di ñi waajuram bokkal sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim moo xam Cheikh Mamadul gii di kër soxna Jóob Mbàkke Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke woon na kii di sëriñ Cheikh Lo sañ na fee dëkk ba tax na itam seng yi njëkkee miiree kër gi moom moo ko fa joxe Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke itam ko amoon koo lëre la ak kii di sëriñ Cheikh ndax moom moo sàkku woon ci soxna Muslimatu Mbàkke ngir mu jox kër googu kii di sëriñ Cheikh Lo Cheikh Abdoulahad Mbàkke itam kasaalika Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke Cheikh Murtada Mbàkke mi bokk ak waajuram benn waajur wu jigéen ba tax na sax lii di ab taawam moom sëriñ Cheikh Lo nijaayam jooju di Cheikh Murtada Mbàkke lu ko tudde muy ku ñuy wax sëriñ Mourtada Lo ci nekkeenug sëriñ Cheikh Lo la génn lii di àdduna moo nekkoon taawub sëriñ Cheikh Lo sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbàkke ba ci sëriñ Sohaybu bu mbàkkee kon njabootu ku baax ki sëriñ Touba Seexul xaddi moom ñu nemmeeku woon wala ñu daal nemmeeku sëriñ Cheikh loo lañ ñu jigéen ñi itam kenn demul ñu des ndax xam nañ ne kat mu jooju seen doom la ñim bokkal ëttum ndaam bi itam di njabootuk sëriñ ndaam Abdourahmane Lo itam kenn demul ñu des itam ndax bari na lii di ay turandoo ci ëttub sëriñ ndaam Abdourahmane Lo bi moom sëriñ Cheikh bari nañu ko tudde doom ngir kiimaane gu jëmm ji di sëriñ Cheikh Lo kiimaane ak itim yéeme gu mu yéeme ci lool nag la sax wéyal ndonal waajuróomam wa muy soxna Jóob mbakke ba ni mu génnee àdduna moom sëriñ Cheikh Lo sëriñ Cheikh Lo nag moo nekkoon xalifab soxna Jóob Mbàkke ci atum 1930 ba atum 1989 sëriñ Cheikh Lo moom soxna Jóob Mbàkke ak kii di sëriñ Daam Abdourahmane Lo mi ngi génn àdduna bisub altene ñaar fukki fan ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1410 ci gàddaay gi altene ñaar fukki ci fan ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1410 ci gàddaay gi dëppoog muy bisub lundi 18 décembre 1989 lundi 18 décembre 1989 nijaayam ja cheikh abdou xaadir mbàkke mooy ki ko taxawu ñu jébbal ko boroomam ci tuubaa ñaareelu xalifa soxna jóob mbàkke mooy doomu sëriñ cheikh loo bii ñu tuddee sëriñ ndaam abdourahmaan loo ñu koy wax sëriñ cheikh abdou moo toog xalifa ci atum 1989 ba nëgëni ñu koy ñaanal mu yàgg ci toogaayu waajuróom ak lii di toogaayu maamam ndax sak la ci ëttum ndaam bi te suñ boroom guddal aw fanam ak mbooleem ay rakkam amiin tem ay rakkam amiin tem ay rakkam amiin